ñi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel ñu ngi fi euh, Touba plus précisément à Ndindi biir kër Serigne Abdou Karim Mbacké borom euh, Mbakaarim ak Axla euh, tey nag buñ fi fekkee soxna soo xamante ni à travers l'écran dañ koy gis mu nekk une dame nga xamante ni ci série yi lañ koy gis waaye nag mu ñëw ci kër Serigne abdu Karim dañuy kay laaj naka la gisee bés bi waaye tamit lan moo waral teewaay bi fii nga xamante ni moo di Serigne kër Serigne Abdou Karim soxna Amina maa ngi lay ziar bu baax a baax la jox sa wàccuwaay. a a bu baax mhm. baax waaw di ziar ñi nga xamante ni ñu ngi may seetaan ñëpp waaw gannaaw ba ma leen nuyoo ba pare donc euh, maa ngi nuyu daal ñëpp ñi may seetaan di sant sañ Fallou di sant sañ Fallou ba muy juróom-ñaari yoon sant sëñ Fallou ba muy juróom-ñaari yoon ngi lan moo ko waral ah mais lan moo ko waral parce que sëñ Fallou Euh, sa mooy sëñ Fallou rek te moo waral ma ñëw tey ci màggal gi mm-hmm. te ku nekk ku xam Amina rek xam ko ak sëñ Fallou mm-hmm. mooy la ma waxoon rek waa mm-hmm. mooy la waxoon rek man sëñ Fallou mooy sama lépp sëñ Fallou laa bëgg sëñ Fallou mooy sama lépp gannaaw yàlla ak yonent bi ak sama ñaari waajur sëñ Fallou laa bëgg mais yàlla dafa def nii sëñ Fallou daf maa booleek njabootam muy Baye Karim mu nekk sama baay bu baax nekk sama sëriñ nekk sama lépp yàlla def tamit mu boole maag doomam muy soxna may laat Karim ma di ko sant di ko gërëm ak ñoom yaay puy ñoom ñëpp ma leen sant di leen gërëm fii moom sama kër la faj aajo moo ca gën a gaaw buñ koy wax kon yow da nga koy confirmer ni sëriñ Fallou mooy faj aajo moo ca gën a gaaw loolu maa ci mën a wax lan nga ci lan nga ñu ci mën <laughs> xam nga sëñ bi. Mhm. man mën naa ne daf maa beral loxo. ah mais li mu lay comp. waaw waaw li lay compale rek lay compale nit ñi. <laughs> non non xam nga nit ñi da leen di compal. Mhm. man dafa may tibbal. Ah, waaw nit ñi da di compal man daf may tibbal jox ma ci booli la may yakkal wala syndicat jox ma ma yóbbu nit ñi nag cof la leen di jox. sëñ bi loolu lay def ak man chaque instant. lan la sëñ bi ma sa def ak yow loo xamante ni mosoo koo nettali fenn nga war koo nettali biir univers info ak Sénégal Buzz. waa xam nga sëñ bi. Mhm. ci jëflanteeg man la dëkk. waaw parce que euh, bi ma lay wax rek tay tay tay ci suba la. Mhm. sama oto dafa paan. Mhm. damaa fàtte fay sama lumière yi oto ba yendoo démb lumière yi tàkk ba batterie ba fay. Mhm. oto bi di électrique nanguwul tijjeeku. démb ci guddi téeméeri nit ak juróom-ñetti wër na ko tôlier mécanicien ku ne nangu oto bi nanguwul tijjeeku. barki Alaaji Fàllu Mbàkke ak bésu màggal gii. tey ci fajar dama taxaw ci bunt bi ku ñuy wax góora di ndongoy Baye Karim indil ma benn xale boo ko gisee sax ndongo bu ndaw la sëñ fàllu la tudd mhm. barki allah ji Fallou Mbacke dafa laal oto même pas cinq minutes mu tijjee ko maa ngi taxaw ak sama yaay duma fen ndax maa ngi biir kër Baye Karim te rus naa di wax loo xamante ni du dëgg mais barki allah ji Fallou bi may jooy teyuma ko mhm. parce que dama toog foofu ne sëñ Fallou bu fekkee ni am na tuut lu ma am ci yow te sa màggal gi kott tax maa jóg wan ma sa bopp billaahi wallaahi taala ak sama bakkanu doom matul 15 minutes sama oto ubbeeku te démb def nañ ci presque 4 heures du matin laa tëdd parce que imaginez 23 heures ba 4 heures du matin ñu nekk ci oto tôlier mécanicien ku ne ñëw na oto bi nanguwul tijjeeku mhm. mais menn sëñ Fallou mu ndaw moo ñëw laal ko ubbi capot bi juk ñu maas ma batterie bi tàkk. kéemaan léegi léegi léegi dama lay laaj man léegi man lu ma war lan laa war a dund lu dul taw féex te man sañ Fallou daf ma booleek njabootam mm-hmm. ndax damaa bëgg sañ Fall te xaw ma ko mm-hmm. waaye Fallou Awa Bousso sama waa ji boole maag njabootam boole maag Baye Karim mi nga xamante ni mooy sama baay mm-hmm. di sama sëriñ di sama lépp Baye Karim tamit boole ak njabootam boole ak ki nga xamante ni moo di soxna may laat Karim mhm. moom it mu nekk soxna su yiw mhm. soxna su baax mhm. soxna su xam valeuru taalibe xeebul benn taalibe ak noo mënti ñëwee am daraja ak ku amul daraja la yemale ñoom ñëpp ñooy bokk saalam bee ku fa dugg xam ni amul xàjj amul seen ku fa dugg ñëpp a bokk yem ki am daraja ki amul daraja ñoo bokk yem te Baye Karim noonu lay doxee te yaakaar naa sama sang bi nga xamante ni moo di Fallou Awa Bousso jax réew ma càmmiñal ma reema kunta ki nga xamante ni moo ma def li ma doon tey noonu lay jëfee sëñ Abdou Karim mii tey di sama baay di ko jëfee mu ngi noonu euh, Sénégal yi bari umpale ni yéen ba tax na bu ñu leen fekkee ci yu respecté ko lan ngeen yëg ba bu ngeen ñëwee ci kër euh, sëriñu tedd yii nii euh, fas seen ndigg dugg ci waañ bi di ko jaayal. waa xam nga ñun yàlla dafa def ni bu nu ñëwee liñ doon sabab lu mooy nekk ci waañ bi waaye sëñ bi daf ñoo teggi lépp sëñ bi daf ñoo teggi lépp sëñ bi daf ne nu toog leen ma di leen berneel ndax yéen ay waayu sëñ Fallou ngeen ba nu ñëwee ba tey dara jeexul wallaahi azim lépp mi ngi mat soxna May. yaay puy sëñ Abdou Karim macha allah dara dara dara manqué wu lépp a ngi mat macha allah. waaw mi ngi noonu donc sant rek. Euh, nga nekk ci keppaaru sëriñ Abdou Karim euh, des fois nga joué ay role yoo xamante ni euh, peut-être sénégalais du ñu apprécier sénégalais dañuy duñu dañuy jaawale nit ki nga xamante ni moom mooy Amina ak la personne bi nga xamante ni moom mooy joué tey naka ngay def ba ba tey ba gérer loolu yëpp nga xamante ni doo ci am benn xar ma yàlla ak ñi nga xamante ni ñoo di waa kër gi. naa sénégalais bu léegi sénégalais yi xam nañ exactement lan mooy rôle parce que am na rôle yoo xamante ni am na rôle boo xamante ni joué naa ko xëy na au début am nañu ma mere woon mais à la fin dañoo comprendre te man yàlla dafa ma defal lu particulier mooy gisuma ko ma bañ Sénégal man gisuma ko ma bañ te loolu dama ciy sant yàlla macha allah man moom ñëpp ma bëgg koo romb dañ naan Amina ngi nii Amina bu sëñ Fallou bëgg Fallou ngi nii mhm. te loolu dama ciy sant yàlla te nag du taalibe Serigne Touba yi kese de mhm. taalibe Tidiane waa Ndiassane yeeg fépp laa la wax mhm. foo dem fu ne rek samay fan su ñu ngi fa te joué ma fi toju ma wala joué ma fi loo xamante ni nit mën na ni kee mi ngi nee mais sant yàlla la parce que loolu ñëpp ñoo ko am te heure bu ma génnee itam nit ñi dañ may déglu dañ may jox nopp donc damay sant yàlla bu baax mën nañ la xaar ci projet ci at bi bien sûr maa ngi si am na si projet bu ma nekk parce que am na maison de prod bu ma contacté il pas longtemps. Mhm. donc euh, ñu ngi am lu ñuy préparé daal ñu ngi am lu ñuy waaj. lu lu lu lu tireeku. lu tireeku. lu tireeku ah, waaw sëñ bi du wax. sëñ bi non sëñ bi du wax ndax man yàlla def ne damaa nekk ndongo boo xamante ni xam naa fi may teg sama tànk waaw tamit euh, bëgg bës tamit du ma jaral def yéen nii ndax même bu dul dara damaa am famille sama yaay ak sama doom donc am na yoo xamante ni mënuma ko permettre sama bopp même bu fekkoon ni man bëgg naa ko sax maanaam sama entourage yu ma ko rawatina nag ma jokk ci waa Kër Sëñ Fallou xamuñu lu bon duñu def lu bon duñ ko digle. ok euh, tu yow tu. sant yàlla nag. parce que xamali naan uude ni mu la gis rek la lay ëwalee mhm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax parce yi heure bu ma woowee maanaam rôle yu responsable lan ma jox des fois nag du ñàkk jox la ay rôle seytaane yooyu mais yooyu yooyu yooyu du da sa que yow mii ni ngay xapp xappale nii laa te ñun dañoo yaru baax civilisé doomu ndar baax yaru civilisé teey wax nànk dox nànk bëgg nu daraay problème jàmm la ñu bëgg ak salaam non non xam nga rôle mooy li may wax rek artiste warul bañ benn rôle parce que artiste rôle bu la jox danga ko war a jouer mais man dama am ay conviction man am na yoo xam xamante ni mënu ma ko permettre sama bopp mooy li la wax. parce que sama yaay man damaa ragal sama yaay. sama yaay daf ma napp ba ni ma toll nii daf may dóor. na ko ñëpp xam ndax su ma defee lu ma war a def teel lu pes la may def. tu es pour ou contre ñi nga xamante ni maanaam euh, dañuy jouer ay rôle yoo xamante ni euh, kilifa sax du ko mën a seetaan sàkkantuma xale. non je ne suis pas maanaam mënu ma ni je ne suis pour ou bien je suis pas contre parce que lu tax du ma juger. Mhm. parce ku ci nekk yaa moom sa bopp tu es libre de faire ce que tu veux mhm. man je ne juge personne ku nekk yaa xam sa plan de carrière ni koy mais man sama bopp laa mën a waxal man Amina am na yenn rôle yi nga ni je ne peux pas me le permettre du ma ko jouer sama yaay sama doom ak fi ma nga fi nga ma fekk mënu ma def quoi loolu la. Euh, situation politique réew mi du ñàkk ñu waxtaan ci parce que euh, sénégalais yi nee nañ yéen yi ou bien yéen actrices yi da ngeen euh, wax bon yi la ñu wax ñu la ñu wax actrices yi. lii moo tax nga génne sa bopp yow. ñun du ma de. waaw yow léegi dama la yow tu n'es pas sénégalais mais. bien sûr mais képp kuy sénégalais sénégalais am ga droit wax. mais yéen la seen moo gën a jëm kaw parce que yéen ay mais xam nga problème bi lan la nga nekk acteur nga nekk animateur lu ma mënti doon lam daa ci boppam am na mot à ci situation. dëkk bi mais yéen a gën am mot à waaye loolu moo tax nga bëgg wax loo nii. Ah, mais dëgg wax. man moom je suis apolitique wax ci politique mais lenn moom ñaawlu naa ko mooy situation dëkk bi actuellement faruma kenn nag mais dëkk bi ni muy doxee nii actuellement nii vraiment ñaawlu naa ko tee nga maa bàyyi tee nga maa bàyyi. doo wax loo de faralu ma kenn <laughs> sama bopp laa. situation réew man sama bopp laa faral maay jox sama bopp dépense réew mi ni doxee nii neex na la ma de dama ni sama bopp laa faral. Amina réew ni muy doxee neex na la wala neex. déggoo ma de maay jox sama bopp dépense maay fayal sama bopp kër di fayal sama bopp ndox ak courant faru ma sama bopp laa faral. Ah, mais réew mi ni muy doxee. laa faral. li réew doo ci wax. maa ngi ci sëñ Fallou. bonne <laughs> <laughs> doo nit. ci diggante eh, Tické Laobé ak Zal Mbaye xam naa du ñàkk nga eh, nga yëg li nga xamante ni moo ca xew ndax ki nga xamante ni moo di Tické Laobé eh, yóbbu na Zal Mbaye police cybercriminalité. yaa ma ko yëgal de maa ngi nii ci màggal gi laa nekk presque un mois ngi nii suivre actualité ci màggal gi rek laa nekkoon nekk ci señ Fallou rek yaa ma ko yëgal yëgu woon problème kon dañoo am problème ñoom ñaar. am nañ problème kay génn xasante beeg yàqante bu metti bi nekk ci dëkk bi. yéegu ko de yaa ma ko wax te bu fekkee ne am na nag maa ngi leen di ñaan yàlla ñu delloo seen xel te xam ne lu dul jàmm jàmm ko gën waaw te ay nit euh, bu ñuy ànd dañuy yéenante jàmm rafetal xol yi ndax xëy na tamit euh, njuumte mënul ñàkk waaye daal nan laab xol yi rek raxas ko ba mu set rek ngay topp Mame Ndiaye Savon moo tax mënoo cee wax dara tamit dégg naa Mame Ndiaye rek ngay topp waaw xam nga Mame Ndiaye lu tax ma koy topp <laughs> dafa nekk taalibe Sëñ Fallou ma bëgg ko lool nag su baax xam nga ni su may nelaw guddi TikTok laay jàpp te Mame Ndiaye laay seetaan suba ba ngoon jot. da ngay bañ ku la kan man maam bu ma laayivalee bëgg naa. <laughs> musuma koo gis aw ma numéro am xaw ma ko leer na Serigne Fallou Mbacke mais dama koo bëgg ndax bëgg mu bëgg Serigne Fallou. Mm-hmm. wallaahi azim man ku bëgg Serigne Fallou dama lay bëgg ak noo mënti men. ak noo mënti men te Mame Ndiaye dafa bëgg sëñ Fallou ba yemalew kook dara man ku bëgg sëñ Fallou bëgg naa la. yaa mu laayfal la. kan waa na ma laayfal bëgg naa. dikkee xam nga man est-ce que xam nga benn affaire man damay wax naan su ma nekkul woon saraxule ak naar lawbe laay nekk kon mënoo ma jaxaseeg lawbe tikke sama xarit la rek leel dégg